DG dafa am loo xam ne lii neexul si xol boo gisee xale yi ni ñu ci waxee nga xam ne seen xol neexul seen xol neexul élection moo xew ñu jublu ay élection nga ñëw fii Kirène mën naa ne saafeen ñëpp sax saafeen yépp ba de ay ñu set wecc ànd ak yow di la jàppale ñu set wecc laa wax ànd ak yow di la jàppale ay xale yu ndaw ay nit jiital leen ma ne ñuy dal ci kilifa yi ma ne jekkul jaaduwul waaye ku ne lañ la yara ci sa biir kër moom ngay génne si mbedd mi lañu la yare moom ngay génne ci biir benn alsaan mbir mi metti na waaye jàpp naa ne waa saafeen danañ ko fajal seen bopp danañ ko fajal seen bopp DG gis nga wax yi ñuy wax ci réseaux sociaux yu ñaaw la ñun bu ñu yare woon ay saage bon daañu saaganteeg ñoom ndax jar na ko ndax kenn kenn amul kenn ku dul say waajur waaye li ci gën a rax li ci gën a metti mooy dañu ànd ak ay kilifa yoo xam ni ñu ne ci seen biir di jël ay wax yu bon di ko dugal ci réseaux sociaux yi pour nit ñi décourager te loolu yooyu yëpp du waxi dara waxi sos dong la ma ne loolu neexul amul kenn mënta neex kenn nga xam ne ñii avenir yu sans moom lañ bëgg yàq ndax waa ji boo déggee ni muy waxee ci biir réseaux sociaux yi wallahi njoon sax mënu koo wax na njoon trois fois yow nit ki nga mënta wax santam nit ki nga mënta wax santam noo mën a xami jikkoom da koy siise nga xam ni kii ay nit a bind teg sa jox ko fay ko xaalis mu taxu ci réseaux sociaux bi pour yàq nit ay doomu saafeen ay doomu saafeen ay doomu saafeen jël loolu ñu koy distribuer ci biir saafeen te kat wallaahi ñoom ñoo la gën a xam ne li ñuy wax si moo du ñoon du dëkk ñoom ñoo la ko gën a wax amul kenn koo ci koo ci mën a jox lax yi waxuma la kaabil de laxdari yu doom mu teg ci loxo mu ne li am na gis nga Mamadou Ndione damay faral di wax ne sax moo gën ci ges yàlla nañ ko fi yàlla faral Mamadou Ndione mii moo gën ci ges yàlla nañ ko yàlla faral boroom xam-xam yaa ngi fi xam nga nit ñi ki gën ci ñoom ñoom xam nañ ko ki xolal yonent bi dafa ne xayru naasi anfaxuhum li naasi ki nit ñi ne kii moo gën ci ñun koo koo gan ci ñëw ci ñëw Mamadou Dione gan ci Saafende fuuf xoolal am na ñoo xam ne ñii foo leen seen seen bakkenu seen neexu bakken la ñuy doxe moom la ñuy waxe ñooñu moom mënuñoo topp Mamadou Dione fii lañ toog si école bii école bii di waxtaan benn enseignant jóg jël kat jël parole ne monsieur le maire Aliou Samba Ciss ñun waa jas day kayitu teere ñun enseignants yi ñu affecté Kirendé ñoom dañoo bëgg yow nga yëkkati ay teere may ñu te yàlla tax maire yàlla ko yàlla yére dafa jóg rek jël micro bi mun naan awma kayitu teere yi may muy enseignant muy waa jas yéen waa Kirène lotissement bu ñu def fii Kirène jël nañu vingt pour cent yi jox ko Kirène dama ne ndax yéen waa Kirène jot ci vingt pour cent yi ndax jot ngeen ci vingt saa yi ku ne ku ne dëkk nga koo xam ne kii may nañ ko ñetti yoon terrain nga dëkk koo xam ne kii mayuñu ko benn benn yoon mu kenn mësu ko may ñu gis suñu gox bi ni ñu ko yoree neexuñu rafetul te gënul ñu war a jóg xoolaat suñu bopp xoolaat suñu bopp seet beneen taxawaay si waxtaan yi ñu jot daje yépp ñu gis na profil bi gën ci commune jees c'est indiscutablement le profil du DG du Ndione ñu taxawal suñu réseau am suñu groupe di si waxtaan si li ñu war a mën a apporter réseau bi groupe euh, coalition bi ñu bëggoon accentuer suñu participation wala suñu contribution si communication ñi ñëpp si la ñu bokk amul benn jour bu ñu deful suñu compte rendu suñu bilan si campagne bi pour ñu mën a indi suñu contribution te mu doon li gën si ñun ñëpp damay félicité madame Pouy elle n'a jamais assisté aux réunions elle est à Diourbel madame ay gorom nekk Kirène am na beneen gorom Xarjata Pouy mu nekk journaliste à la RTS mu may yóbbante ne moom DG mu ngi sa ginnaaw qui nekk lycée professeur d'informatique au lycée technique de Diourbel depuis bu ñu commencé pré-campagne bi ba léegi mu ñuy topp di ñu jox ay orientation di indi contribution ci xalaat bésu jii laa gën a kontaan ci Mamadou Ndione maa ngi koy nuyu ci turam ak santam ak màggaayam moo di yal na la yàlla gën a màggal yal na ko yàlla gën a màggal yal na ko yàlla yëkkati yal na yàlla defar mbiram li ñu bëgg ci Modou Ndione yal na ko yàlla def ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e dama ne tey fada fada pour wax ci Modou Ndione tey xaw naa ci tayal tey ndax soppa ki bëgg nit ki ngir njariñ rek mu jarala lépp moo ma dal ak Modou Ndione waaw Modou li ñu gis ci yow lañu ko gis dama ne woon gaañi dañu doon lambatu saafeen yépp dañu nekkoon gumba di lambatu ñu naan nii ay ati at ñuy lambatu rek lan lañu doon lambatu nit ku mel ni waa ji yàlla moo ñu booleeg Modou Ndione jox ñu ko kon dañuy wax ne sunu làmba daj na ca laa waxee ne kon waajaa ngi wax boobu yal na bu mu neen yal na yàlla taxawal Modou Ndione fa mu nekk fële ci miiri ba jële fa gaañ li ma toog fii yëpp xalaatuma woon sax ni dinañ ma dox kàddu parce que dama def woon ni su ma jëf ji rek doy na kàddoo ndekete yoo il faut rek mu wax ci waaye nag yoon la war naa ci for joxe kàddu ndax ñi nga xam ne man maa tax ñu déplacé wu ñëw ba Kirène kon bàyyi leen ak xele yi kese wóorul itam may nuyu délégation bi nga xam ne moo fi rot te muy délégation bu am importance te Mamadou Ndione mi di suma lépp jiite ko euh, wax dëgg yàlla njoon maa ngi ànd ak moom fu bari nag ci saafeen am na occasion ma wax leen li tax ma ànd ak moom te jibi fàttali na leen ko man bi may ànd ak Mamadou Ndione néew ma ko lii nga may defal walla lii nga may defal dama ñëw rekk ànd ak moom parce que gis naa ne moom xëy na moo war a mën a defar saafeen Saliou Ciss maa la ciy teg ñoo fi nekk ndoon depuis 96 nga jëkk maa dugg ci politique dama la fekk si en 96 la fi aaroo na ngoon ñëw mu ànd ak Aliou Ndione di rakku papa kii Aliou Ndojol Omar Ndojol Omar moori jur kii mu ànd ak Aaroona ak suma nijaay Juuf Chérif ñu ànd ak papay Laman Njoogu male di Malick Fay ñu ànd ak Moussa fekk ma suma kër ñu ne ma Assane nag dafa jóg moomoo nit ñi dafa am loo moom ci sa bopp ñun ñu moom leen li li ñu moom ci yow nag moom nañu jël si nii jógal ànd ak ñun amatuma lu ma ci parce que dama mos a foog ne bu ma defee politique dinaa ñàkk nit ñi parce que politique ni ma mos a gis ñu koy defee moo ma xawoon a yéem waaye nag ma ñëw ànd ak ñoom ba waxtu wi maa ngi ci terrain bi ah su ma nekkin bi ci terrain bi rëccuwuma ci dara gaa yi ngeen doon tudd léegi am na ci ñu ma ci mos a toogal ñu naan ma yow ndekee buggoo dara ma neen ah bëgguma dara ci lan ñu ne boo bëggoon dara doo topp ci Saliou Ciss mii boo ba tey te jëmewu la fenn <laughs> man neen maag Saliou kat dañu tase ci parti bi nag ñëwuma fi woon pour mu may jëme fenn ni ma war a jëme fenn noonu laa ko war a jëme fenn moo tax ba fa xaw a mel ni maag moom ñun ñaar ñoo ci xaw a des pour pourtant militant yaa ngi fi pour xamal leen rek ni ñaari mbir moo am ci politique kii politique pour defaru ak kii politique pour xettali askan bi ñun nag ñu tànn politique pour xettali askan bi kilifa ñun muy doyen Assane Sène ñu koy wax Assane Mandiok di ko teg également ci loxo sunu kilifa Moussa ak sunu kilifa Abbas euh, defe naa ni sax mënoon naa bañ jël kàddu tey ndax li ma dégg tey kireen ku mu doyul xaw lay doy muy kàddu yu jib ci jeunes yi ci góor ñi ci jigéen ñi rawatina kàddu yi jib ci doyen Assane ak enseignants yi fi jot a wax avant moom muy wax may defal waa Kirène di leen xamal ne wax bu bon fa mu dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo wax bu bon dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo te borom gémmañ guy nàcc du wax jàmm ñoom la seen gémmañ di nàcc ñoom ñoo jaaxle ñoom tey ku ci contrôlé woon sa tension mu ngi vingt wala wala vingt et un xam nga tension bu normal ay douze ak i treize la ils sont stressés ils sont stressés pourquoi lan moo tax ñu stressé ñoom li tax ñu stressé parce que xam nañu ñun ñu xam xam nañu saafeen xam ba tax na boo leen gisee léeg-léeg ma leen jarul ngeen leen di topp dama xam fi ñuy mujjee ñoom dama xam fa la ñuy mujjee ñoom ndax bés bu yàlla sàkk ñoom dinañ taxaw ci benn béréb wax fa ëllëg sa sunu xale yi ñëw wan leen ne li ngeen wax du dëgg dañu njëkk a wax ne Mamadou embauché wul kenn fa mu lekk fa muy liggéey keroog fukki xale taxaw ne leen ñun de fa ñu Mamadou dugal foofu la ñuy liggéey ba retraité te yàlla xam na ne xale yooyu am na ci ñoo xamante ne ñoo ëpp salaire meeru Diass dëgg ñu taxawaat feneen wax ne ki jiite ndaw ndaw yu Mamadou Ndione yi jàppul ci dara tey jii fole ca Raafo. xale bi xabal leen ne fa ma Mamadou dugal fa laay liggéeyee ba retraité fa te xale bi amagul 40 ans te moom mi yëkkati kàddu wax ci xale boobu mooy meeru Diass kon bu ñu ñëwee tey ñu ne ñoom àbb nañu gémmiñ ndax gémmiñ léeg-léeg nit àbb ko ndax dañuy wax naan doole jàmbur ku koy xeexee loo jiin xet ko ndax bu kurpañ di dal du la dal doole jàmbur ba lay dal ñoom lañu àbbal làmmiñ làmmiñ boo xamante ne nekkul Sénégal mu nga bitim réew làmmiñ boo xamante ne nekkul Sénégal mu nga bitim réew waaye làmmiñ ba ñu àbb foofu la amee nattu ñoom ndax làmmiñ boobu ñu àbb saaga na képp kuy sëri kilifa diine ci Sénégal làqu fële ca bitim réew saaga Seydi Hadj Malick Sy sëñ Touba Baye Niass képp kuy nit ku baax ci Sénégal ñaari at yi ci ginnaaw làmmiñ boobu saaga na ñooñu waa kooku bu sosalee Mamadou Ndione Kaye ñoom ña ko fay pour mu sosal ma def nañu erreur boo xamante ne di leen topp ilaa mi diin ba tax na moo tax ma ne jarul ngeen leen di ngeen ngeen leen di topp ndax léeg-léeg di gis xar mu taxaw di mbëkk garab fekk boppee xasan seen boppay xasan rek moo tax bu leen leen tontu ñun dama am kontaan ci waa Kirène dama ci am mbégte ndax dama koy faral di wax nee naa leen yéen yéen fi am voirie communale yéen fi am tali yu ñuul te li leen ko may sànqaraan wax na ko pas-pas ak organisation ak méthode commune Thiès rek ngay gis ASC buy bind entreprise pour ñaan ko dara ñu naan ko il faut mu am cachet mairie il faut mairie tamponné ko amul fenn ki Sénégal pourquoi ñoom ñu bëgg entreprise bu war a jàppale ASC wala groupement wala zone wala leneen ñu ne nag lettre ba jaar mairie maire tamponné ko buumu njaama tax man mii dirigé naa ay ASC fu nekk musuma gis loolu fenn ci Sénégal jël doomu jàmbur yi ñëw bëgg a posé wu en intermédiaire avec les entreprises pour que xale yi ku ci soxla entreprise ñu ne la jaaral mairie mairie tamponné fan lañ ko teg si les jeunes sont bien organisés kay ñoo war a dem ba gàkk ñëw ne mairie dañu bëgg nga jàppale ñu mais la liberté d'association commune bu ko instauré wul naroo jàmm moo tax waa ADK fulla bi ngeen am. dama leen ci remercier di wax ne ñun bés bu nu jëlee mairie bi genre buumu njaam yooyu dañ koy dindi bu la neexee nag ngeen ne mairie kaay gunge ñu ci lii kaay jàppale ñu ci lii mais les entreprises qui sont dans la localité les 49 ASC yi fi nekk daayira yi kuréel yi ku la neex bindal ku la neex nga ne kat maire renforcer courrier bi ak un courrier parce que c'est un projet important loolu laa bëgg nit ñi comprendre ko ñii dañu xamul rek ndax loo mën mën war gëléem bul toog ci bakken bi xaw ma li may wax loo mën mën war gëléem bul toog ci bakken bi ñoom dañu toog ci bakkenu kursaaf yi waa kursaaf yi am kers ndax mbokk waa kursaaf yi am yar di ki seen mbokk ndax ñu ñëpp mbokk lañ waaye trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop mais li ki des benn semaine la ñun bañ leen gañee du tey bañ leen gañee du tey ba ñu duggee ci xolu nit ñi du tey bañ leen gañee nit ñi dëkk bi yëpp xale yu ndaw yi sax xam nañ ni coalition bu toll nii musul am Koursar le parti socialiste mu ngi fii taxaw keneen ku taxaw fële ne socialiste nga nag mën nga am nga am nga sa droit mais secrétaire général secrétaire général adjoint secrétaire politique responsable des femmes responsable des jeunes filles et cetera et cetera ñooñu bu ñu taxawee le PS est là bés du ñàkk bés du ñàkk dëkku taalibe Cheikh bés du ñàkk bés du ñàkk rek laa leen ne élection yi passé 2014 le bés du ñàkk pesait douze virgule soixante-dix pour cent dans cette commune moom du Dione seul demoon ci élection am vingt quatre pour cent tey ji bu ñu ànd ak parti socialiste lan moo ci des carte gi leer na jeex na. yàgg ñoom tey xam nañ ne mënuñu gañe benn village ñoom seen bopp mënuñu joxañ benn village ne dañ koy gañe mais ñun lu mu bon bon bon. wóor na ma ne sur les 17 villages même bu ci amoon buy rëcc sax du mat ñaar parce qu'on va les battre partout moo tax borom baat bu attaque wurusu ngalam du xuloo borom baatu neen loolu rek la du leneen te wax naa leen ko ca bànj nee na leen plus ñuy gën a manqué respect suñuy kilifa plus ñuy gën a ñànki plus ñuy gën a def yëfu yooyu nga xamante ne du yëfu nit loolu mooy plus bu ñu leen remplacer mën na metti ci ñoom te waxantuma tey jii fële ca jas ñu ngi may rapporter ne diggu jas la ñu teg toog di xas imam rati bu jas keroog bànj bi lañu ñu jéem xotti war ma chef de village bu bànj ñii dañu stressé mais weesu nañu stressé dañu jëfur dañu jëfur dañu jëfur ma leen di xamal ne leen the game is over the game is over le jeu est terminé ils le savent ñoom seen biir kër sax dañ leen di gañe ñoo la ko gën a xam am na ci ñoom nag ñenn ñoo xamante ne muus nañ am na ci ñoo xamante ne dañ naan ñagasal seen kanam boo dajee ñoom dañuy sourire am na ñoom ne dañ leen naan ba max naan leen dal leen ci kaw gaa yi ñu ngay yokk ko ki léegi làqu ca gannaaw am na ñoo xamante ne dañ daan taxaw toog ci première ligne buñ daan meeting ñenn ñaa ngay yolleeku taxaw ci ginnaaw man daal lenn naa leen ko xamal ña leen di xam xam naa ñan la ña leen di jay xam naa ñan la ña di deey xam naa ñan la waaye commune Diass dafay dakkal buumu njaam commune Thiès dafay samp des acteurs politiques yu am fulla yu am fayda yu am xam-xam pour ouvrir demain la brèche à une génération intellectuels yi taxaw fii sànq Sénégal boo fépp foo dem ku am ñu mel nii bu la neexee xam ne la relève est assurée xale yii man dama nekk une génération intermédiaire wax naa ko ñoom doyen Saliou Ciss seen yéene bi ñu amoon ci Koursaafi dem nañ ci ba ñeer dem nañ ci ba jeex man ma dese as tuut war a continuer ak ñoom ànd ak ñoom ñu maintenir flambeau bi pour que suba xale yii maire jas mën ci juddu yeneen meeru Diass man cee juddu yeneen ministre mën cee juddu le plus loin possible ay acteurs politiques mën a egg fu nekk mais mission boobu laa ne daf ñuy jaral lu ne te ñoom xam nañ ko yàlla xam na ne. moom mi jiite mairie Diass tey amatul jàmm amatul jàmm ndax xam na lu tax kañ la ñàkk am jàmm bañ ko joxee bennoo mu wëndeelu wëndeelu wëndeelu ba mu yàgg jéem na ma woo yónnee na ma ay vocal ci ëllëg si te moom mu may seetaan xam na ma xam bañ ko joxee bennoo dafa defoon ne du bokk élection muy wër ñu jibile jibile ba mu yàgg tiit ñu may wër ñoom yónnee na ma vocal mu ngi sama téléphone il le sait te yàlla xam na ne ba muy wax ak ci vocal bi il avait la voix tremblotante Cheikh Tidiane mënoon naa bañ a tudd sa tur je sais que yaa ngi regarder live ndax doo leen reer ndax man doo leen naan teen ndax man dama leen bëgg a xamal lenn lu gàtt lu gàtt laa leen bëgg a xamal Le 23 au soir, vous allez dégager. Le 23 au soir, une autre équipe va vous remplacer. Et c'est une équipe de qualité. Ce n'est pas une équipe tabataba. C'est une équipe de qualité qui va développer cette commune dans l'intérêt des populations. Parce que le développement doit être endogène. Le, doigt, le développement doit être autocentré. Le développement doit être auto-entretenu. dans l'intérêt de la jeunesse dans l'intérêt des femmes dans l'intérêt des populations waxuñu développement boo xamante ne day jël suñu commune def ko banlieue dañu ne un développement endogène te loolu ci loolu lañuy liggéey fexe ba mbébét yi fi jib ñu matal ko maa ngi koy yemale foofu di wax ne dañuy gërëmaat doyen Assane kenn amul fayam ku gërëm doyen Assane gërëm ko doyen Saliou damay gërëm ñi fi teew ñëpp ñi fi yëkkati kàddu ak ñi fi yëkkatiwul kàddu di wax ne on vous donne rendez-vous à tey jii def nañu ñetti activité ñett ñu ngi tàmbalee Raafo dem Altuwen tey jii ñu ngi fii ci guddi gi ñu ngi fii kon jàppaleen ne li des ci semaine bi on va imposer le rythme on va faire un sprint on va finir en beauté te incha allahu on va vous dégager de cette commune implanter une nouvelle équipe. Je vous remercie de votre attention.